heures les vingt trois heures cinq ndam li parcelle la jëm wala kees ci kanam dina leer ndeysaan ñaari mbëri nag ña ngay def fair play mu ngi laaj ay jugeem ndeysaan Garga 2 moo ñu wan ginnaaw ambulance moo ñu wan kanam at bi bi sifla na grand combat bi ndeysaan il vingt trois heures et demi diggante Garga 2 ak ambulance bu kees diggante Garga 2 ak ambulance bu kees ndeysaan Garga 2 jiital pied gauche ambulance jiital pied droit ndeysaan ñoom ñaar ñi ngi lewtoo képp kuy bëggee site bi rek Diba mu ngi lay bëggee ndeysaan seex bi yàlla na fi yàgg te wér tey borom Sénégal moom de ngi France toog jàpp ñàmburam ndeysaan bi nga yenn yëpp yàlla na oyof maa ngi gërëm technicien yëpp ndeysaan ñoom mëngoonee Kande madame Badiane monteur yi fa nekk yëpp ndeysaan maa ngi leen bëggee di leen ziar tey famille Diba ñoo am jom ànd ak kan Abdou Khadre le grand monteur tey Diba moo leen fi teewaloon ndeysaan site bi ku ko dégg rek sa xel dina dem ci buur mu liggéey si liggéey bu am solo ndeysaan jox ko Pa Maguette tey Diba moo ko yor jeudi 17 août 2023 ñu ngi fii si arène nationale ba si jàmbaar production la taxawal fi combat bu mag diggante Garga 2 ak ambulance bu kees ñoom ñaar nag ñu ngi lewtoo ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi lewtoo ñoom ñaar ñu ngi ne teg diggante ambulance ak garga 2 diggante ambulance ak garga 2 ñoom ñaar ñu ngi lewtoo jom ak condition physique moo koy gañe ndeysaan ñu doon ñaan ñaan nañu ñu doon ñaan ñaan nañu ku liggéey rek yaa moom combat bi ñoom ñaar ñu ngi léewtoo du combat bu ñuy saax saaxe day san xamal ne kat api jël la ñu ci dóor nga daanu porte baa ngi nii ndam li parcelle la jëm walla kees ci kanam dina leer ndeysaan karga ndurox na liy dem demul karga à gauche ambulance à droite ñoom ñaar ñi ngi lewtoo ndeysaan arbitre bi at ndeysaan arbitre sifle sifle waat na combat bi diggante Garga 2 ak ambulance ndeysaan diggante Garga 2 ambulance ambulance sànni na benn droite Garga 2 en arrière ndeysaan ñoom ñaar ñi ngi lewtoo diggante ambulance ak Garga 2 ndeysaan Garga 2 dox na ci koom ñoom ñaar jàppante nañ ndeysaan takk na ko takk na ko da kay tegal 16 wala da koy tegal 16 wala laa ilaaha illallaah Garga 2 daan ko gàtt api bu leer nañ Garga 2 daan na ambulance ndam li mujjee na dem parcelle ndeysaan waxoon naa la ko ndam li kees la jëm wala parcelle ci kanam dina leer ndam li mujjee na dem parcelle bu leen fi teew leen moom mooy diba